doomu marché Sam doomu marché bu bees maa daan Mamadi Ndiaye maa daan Tafatin numéro 2. ne dama lay jox nga wax ak ñoom. léegi. mooy mbir yi nga xamante ne ñoo gën a yeewu Sénégal mooy mbir yi nga xamante ne mosu ñoo yàq làmb mooy mbir yi nga xamante ne ñoo gën a dugg ci làmb ci seen génération ba pare nag nga xam am nañ ci biir làmb kon da leen di ñaan ngeen déglu leen ginnaaw yàgg nga xamante ne am nañ ko ba sénégalais yëpp nangul leen ko. dangeen leen di déglu ñoom ñu wax wax ji bu ko defee ñu yebal soq mu dem ñibbi ba moo gën a jege bu ko defee marle doo ko génn parce que Mamadi lu dul jàmm jàmm ko gën te marle bi muy ñëw mbooloo la àndal soq bi muy ñëw mbooloo la àndal kon il faut que Père Thiam tamit faaw soq génn ñibbi bu ko defee marle doo ko génn ñibbi parce que dañoo soxla làmb ji Mamadi kàddu gaa ngi noonu nga dugal ñaari mbëri. dëgg la Modou Anta am na solo trop groupe baax nee na lu dul jàmm jàmm ko gën fa mu du fa jeex te fa mu jëm du fa doy moo gën jamaa te moo gën jamaarloo sox Pikine la dëkk marle géejowaay la dëkk géejowaay yi di leen dégg Pikine ak yi di leen dégg yéen supporters yi ànd ak mbër yi ak staff des dirigeants yéen félicitation ngeen ci am ak di courage bu dee yuuxu yi tàccu yi way yi succès bi xaalis bi lépp mbër yee ko moom félicitation rek ngeen ci am ak di courage kon ànd ak mbër mi mënul ñàkk waaye bu mu bu mu jar yenn yi ñooy mayante ay xaalis bu woon ak sox marle du am xaalis bu woon ak marle sox du am xaalis kon ñu xamee ko noonu bu baax a baax ñoom ñaar bu ñu bëree ba pare dañuy wëlbateeku xam nga doon li nga xamante ni doonoon nañu ko kon dañuy jox sox doomu Pikine bi mu nuyoo sox asalaamaaleykum. maaleykum salaam jàmbaar waaw ñu ngi wax onze bila bisimilah ina wàllu yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul uh-huh. ñu ngi santaat sëriñ Touba bu wér a uh-huh. di santaat Serigne Touba bu baax a baax a baax di sant suma yaay di ko ñaanal gudd fana ak wér gu yaram uh-huh. di ko ñaanal mboolem jullit di ñaanal sama papa fi mu tëdd suuf sedd ci kawam di ko ñaanal képp ku mu fa fekk di ñaanal waa Pikine yal na leen suñu borom defal jàmm waa di wax ne yéen bu ngeen taxawee ni mag maar la ñoo gën a yaru ci làmb ngeen bëgg a wëlbati ko waat ni soq day génn ba pare Marley doog a génn cela veut dire que kon da ngeen jortu violence ñun. non bu ñu waxee li ñuy wax man ak moom ba pare. Mhm. mun nañ lëngante ma ak moom génn ñibbi mu ànd ak ñi mu àndal ma ànd ak ñi ma àndal. Mhm. barki maam Serapha. Mhm. parce que xam nga lu tax man chaque jour damay wax lu ma gëm. man taalibe suñ Tuubaa la kii violence ak moom taxul ma daan ko mu violence ak man taxul mu daan ma. li koy may ndam fii la koy def ci digg géew bi li may may ndam ci digg géew bi laa koy def mhm. chaque jour damay lancer message boobu amul signature contrat bu ma mus a def te lancer wu ma message boobu mhm. kii man ak moom xaalis moom moo ñu boole mhm. xaalis bi ñu ko jox yaakaar naa ne def na ci fullaak fayda ak farata man xaalis bi ñu ma jox def naa ci fullaak fayda ak farata suma njaboot suma famille suma yaay comprendre nga ku ci xeex gaañu Marley da koy dégg rek wala soo ko dégg ko rek du ma teree bëri si du ko teree bëri kon nañ leen yeewu ñu xam ne tey xaalis bi maak maar la ñoo koy yóbbu suñu gàlle munoo leen ñàkk ànd ak ñun ndax mbër dëkkandoom la am fu ñuy dem da ngeen ñuy topp mais indi wuñ leen pour ay coow ay détails kii mar ak moom dañuy waxante lii rek parce que wax moo ñu fi indi tey bu jëflante bi jotee ci digg géew bi la jàmm rek laa koy ñaanal barke suñ Tuubaa ndam rek laay sàkku si moom sàkkuma ci moom leneen billaa yàlla bu weewam xureeku barke maam Serapal jërëjëf sox am na solo maama de xale yi nekk ci sànq bi ñuy ñëw dégg naa fi loo xam ne du waxu micro. Mhm. bu doon soq ak dina ñibbi ci jàmm bu doon marle yaakaar naa ne noonu lay demee. Mhm. mais am na ñoo xamante bi ni moom ñu te fu ñu dem mhm. duñ ma sa yaru ku sa papa mënta yar sa yaay nu laa yar yaakaar naa ne mbedd mee ci des police ba rek wala sa doomu bàjjen dugalal ma marle numéro 2 nga waxtaanal maa ngoom. jërëjëf Modou Anta wax nga ko léegi marle gi noonu yaakaar naa ne dañuy dañuy jaar na Marley ñu bàyyi la nga nuyu ak ñi nga xamante ni ñoo lay seetal seetaan asalaamaaleykum Marley bisimilah. maaleykum salaam. di wax auzu billahi mina shaytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant ñi fi teew ñëpp di nuyu ñi fi teew ñëpp di wax ne comme ni mu ko waxee rek jàmm rek moo ñu fi indi mel na indiwuñu fi te yaakaar naa ne jàmm si la lépp xaj kon ñëwuñu fi pour ay ay ñëwuñu fi pour leneen dañ fay ñëw pour waxtaan pour le 14 comprendre te incha allahu rabbi dinañ waxtaan dinañ jëflante pour la 14 ma am ndam ci kawam comme ni nga ko waxee rek yéene moo ko leneen lu dul jàmm jàmm rek laa ko yéene. parce que nit ki mënoo yéene kenn safaan bi am jàmm mënul nekk. kon na nga yéene ñëpp jàmm yàlla suñu borom indiwaat ko si yow ngi nuyu ñëpp nag waaw di nuyu Makan xam nga di nuyu suma ménagère. Sour Fall bi nuyu suma entraîneur ku ci mel ni Iba Boy Thiam Leuz làmb xam nga di nuyu ñi ma àndal ñëpp ku ci mel ni Pamba nga xamante ne moo ma di seetoom suma rax réparé xam nga di bëggee ñëpp di nuyu Abdoulahad Ndiaye di nuyu suma suma suma grand Iba bu baax a baax a baax maa ngi koy bu baax. Mamadi nañu ñaari mbër yi jege. lii moom mënta am la 14 moom. nan ñu jege sa kenn ku nekk nag am na loo waxoon Sorano nag am na lu fa xewoon dangay ñëw fii ci Marle mhm. parce que soq ba mu demee Gàmbi mhm. ñëw mhm. la mu waxoon Sorano ca mooy Marle numéro 2 jàkkaarloo ak waa Géejawaay pour ñu mën laa seetaan bu ko defee bala nga xam ne image neex nga dem téye sa téléphone di ko seetaanaat da sa bopp ginnaaw kon jàkkaarloo fii nga mën a am image bi naaj jaay doole daan la wax na ko Sorano jóge Gàmbi ma dem mu jaaraat ci baat boobu waaw mooy li ma la wax rek nee naa la soq amul doole bu ma jaay. léegi mu neex yàlla suñu borom bi xam na loolu. man mbër du ma jaay doole si àdduna mënul nekk. lu leer laa la wax. kii amul doole bu ma jaay te mënumaa jaay doole te bu lu 14 incha allahu rabbi ma dirigé ko duma ko daan ko yóbbu ndam liggéey jawaay. parce que dañ ko soxla. amul wax amul wax amul wax Mamady amul wax. <laughs> rek. Marley day nax boppam rek. ñu ëffal leen ah. lii laa la moo tax moom mooy nax boppam. waaw moom mi jàkkaarloog man ni ma daf may jaay doole daan ma moom mooy nax boppam kii amul doole bu ma jaay kii mooy kan. soq. kii moom mooy kan laa la wax. yanu ba ca kaw dóor ci suuf. kii mënu ma yanu. Hmm. barke rasulilaay mënu ma yanu kii amul doole. barke maam Serafal kii bu suñu yaram laalantee rek ma dugal ko top 5. suñu yaram bu tàppalooyee rek bëre bi jeex. xaw ma nag. ci biir combat dama ko ëpp doole ñaar yoon. dàq ko bëre maanaam gis nga yi ñuy wax nii amul sama digganteeg marle sama digganteeg marle laa la wax barki maam Serafal bu neexee yàlla ak yonent bi suñu yaram bu laalantee mu dugg top 5. Ah, yaa ay ci moo ay ci luur mais luur bi luur bi hmm. daan nekk xale ba pare bari doole terrible ci bëre. suñu yaram bu laalantee man ak moom tey lay gëj a bëreeg luur. Mamadi ñu teg ko moo Moranda xam nga xel. xoolal ke géejawaay. xam nga xel boo ko yónnee. waaw li mu rek loolu lay indil. moom xelam dafa jàpp ne Marley dama koy jaay doole daan ko moom xelam loolu jàpp moom moom du maanaam fitam de wala lu nekk si moom maanaam xel moo garaaw moom xelam moo ko jox loolu waaye billaay dafa laajul ñi ma doon jaay doole man mbër du ma jaay doole. maa ko dàq bëre fuuf ki dàq bëre ki ëpp sañ-sañ ki ah. ëpp doole ki gën a sonn ci combat yàlla na ko yàlla may ndam amiin yaa rabbi loolu mbër wax na ko ba tàyyi ñëw ñu buddi la ba ci kaw samp la nga tëdd mbër wax na ko ba tàyyi ñu dugal ko top 5 dama ni kii lii ñuy def nii daa mënut a ñàkk ci làmb ji muy signature muy wax may wax mm. mais kii bu ñu tijji woon arène nationale bi léegi ñu war ci fanaan barki maam Serap Fall gardien bi heure bu ubbee dina ko may bu doon ndox mu naan. dama koy daan ay jël yoo xam ne benn su bokk ak. xoolal géejewaay xoolal waa géejewaay. dama ko dàq bëre téeméeri junni yoon. déggoo li ma la wax de. gardien bi saa bu ubbee fekk la ci kaw. dama ne la waxuma waxu gardien bi moom moo tal ay gardien mais dama ne la kii man ak moom bu ñu loon fii léegi léegi léegi ngeen xeeb ko li may bëree xajul si boppam. lu leer laa koy wax. waaw mais pourquoi pas. damay ñëw taxaw ak booy bii nii nga xamante ne daf fi dara muy ñëw naan ko dama koy eh, indi la yeneen ak yeneen booy bii waaw ah, kii day tus kii dara te la 14 ngay xam ne kii dara sox ab booy la lu dul xanaa xamoo ne moom nekk ginaaru kookali moo ko bàyyi fii mu nekk ci làmb ah maanaam kii maanaam moom ak mbër bu nekkoon ci moom ak mbër bu nekkoon ci kii parce que dama ne ko yaram bu xëyee màgg juddu ba rafetul man maa ko wax man de maa ngi nii taxaw kenn jooyul ci man dara li ñuy jooy ci man xam ma mooy lan xam naa ko déglu rek gaynde dama ni dama ni Marley li ngay wax li ngay wax profitool nga wax ko fii ndax la 14 man maay wax la 14 maa lay duma maa lay daan man maay wax la 14 li ma lay wax ni nii wax ma ak yow di wax ay waxu nax sa xandal de bu ñu jàkkaarloo wee di nga xam ne lépp dëgg la. ba tey bëre ngeen di wax de bëre. dama na la ki ko dàq bëre maa ko dàq bëre wala li ma la wax déggoo ko. ak ma ko dégg tegal ay combat am nga teg samay combat nga seetaan yow nga analyser yow. wala nga teg ay combat am teg samay combat ñi taxaw fii nii seetaan ngeen analyser. micro central bi mu doon wax naan ay bu ñu wëree yëpp na dem ba biir koñom mu laajte kii waa koñom sax ñoo la gën a xam ne àgguma fii si bëre. keroog man nag mhm. man nag dama nekk koo xamante ne. Mhm. forcé wu ma pour réyal comprendre nga forcé wu ma pour ngande forcé wu pour fekk ay gars yi man damay liggéey pour fekk si gars yi si maanaam naturellement ki ki merci merci maa ko mag xam nga maa ko mag la wax xam nga maa ko mag mais barke rasulullah soo ko moo mag moom it billaahi moo ma mag dama ko dama ko maanaam comme li mu wax nee na man maa ko njëkk a garaawul mais man sox reew ma ko dara si làmb c'est dama ko njëkk a bëre grand combat dama ko njëkk a bëre dama koy nangul comprendre nga mais nag dafa ne dama dafa indi magam naaru sokaas ma daan ko te dafa ne boobu moom bëreegul mais fekk na mu bëre comprendre nga nay wax rek te yàlla tax loolu du dara moustique la njëkk a bu fekkente ne nii moom moom man maa ko mag bu jour boobaa na ñëw na ñëw def moom mooy xale na ñëw dañ laa jëloon fii. pour pourtant moom li muy xel ñaar naan ay bus bis boobaa na ñëw ak yii man loolu dama ko dama la ko wax wax ko àdduna yëpp di ko dégg bu arbitre wàccee loxoom ma dox wut si la nga taxaw mu dugal la top 5 loolu aw ma ci tànk ginnaaw Marley maa la ëpp doole maa la dàq a bëre màgget bu bu xobi daas nga dama laa mën ba pare tombeek yow amoo sens. maa ko gën a baax yaram. barke rasulilaay parce que jëluma dara naturel laay liggéey kii day pikiru billaahi wallaahi day pikiru déggoo li ma la wax man fi ma nekkoon Maroc moom fa la nekkoon xoolal caméra yi est may dégg bu baax man bi ma ñëwee di entraîné xamala lañ ma wax pour ñu ñëw nga xamante ne dañ lay pikir maanaam pour 6 000 la Sénégal xaalis bi pour nga am ma ne ko so barke alxuraan bu dee li may wax bu dee li may wax nii am na lenn loo xamante ni lu ma si war la yàlla na ma daan moom ñu ne ma 6000 francs la may leen baax na doy na sëkk parce que man li ma li ma bëgg man li ma bëgg sama yaram du ay du yenn yi kii man ak moom xamante nan kii xam na ma bu baax wallaahi xam na ma bu baax lu tax nga ne fi nga ko jëlee amul sens lu <laughs> xam nga benn affaire chaque jour dañ ciy wax ma def ko mbalak di reetaan bugguma ci woon sax wax mais barki yonenti yàlla Muhammad laawaat yonenti yàlla Muhammad sirop buy loo nit sax man soox duma ko naan c'est que man xam nga fan laa juddoo ma wax la tey fu ma juddoo mm. man Kaabrousse laa juddoo Kaabrousse Jembereng Monsoor këruxëy xëy yàlla dëkk boobu demal nga laajte ñu fa juddoo man maa ci gën a tuuti ñu juddoo dëkk boobu barki arxuraani karim bu ma demee Casamance dañ may xas xas samay mag ni leen yéen ñëpp kenn jëlu ci seen baab man sama papa bi ma jur champion la sama yaay bi ma jur champion la sama yaay dafa bëre Ziguinchor ba tas barki yónnanti yàlla Muhammad sama papa dafa bëre Casamance ba tas man dama juddu ci dëkk boo xam ne nit ku ndaw judduwu fa ñun dans les normes ay Goliath lañ famille bi ma bokk ay Goliath lañ man maa ci juddu tuuti man du ma naan sirop buy nelawloo nit barki arxuraani karim mais ñi dañuy jaawatle gis nga coono yi may daj bu ko marle mii dajoon ñu roobi ko ko saal bi muy wax Maroc City Club maa leen di bëggee di leen nuyu bu baax falaa doon entraîné falaa doon entraîné coach yi ma doon entraîné barki yónnanti yàlla Mouhamed ak yàlla bu ma ko daan bi ma dégganteeg ñoom ñu ne ma sa adversaire fii lay entraîné dama ni leen entraîné leen ko bu baax ndax sama combat ak moom neex tontuwu leen leneen néew ma leen lii waxuma leen ci moom dara parce que nit waa déglu ma rek gaynde parce que nit parce que nit nit looy wax ci sa moroom ci ginnaawam rek na doon lu rafet kii suma adversaire la lamb bii moom moo ñu boole du tax ma taxaw naan du ndaanaan wala xamul dara wala munumaa daan wala affaire yooyu waxuma loolu de lamb ku ne mun na daan moromam waaye man li ma gëm li nekk suma bopp ma liggéey ko préparé ko bu arbitre bi sifflé bu marle suñu yaram laa laalante mu dugal ko top 5 munu ci dara. Marle. dama ko jël ci kaw. mu ne waa Pikine 9 points lañ ko laaj. te 3 yi booy Niang joxe na ko. moom moo dese 3 yi yeneen 3 yi muy 6 ak Ama. Boy Niang nga wax ne sook du ñu benn ñoom ñaar dama la wax benn affaire ci salle bi mu waxoon ne moom fa la doon entraîné fa laay entraîné kursu bi. bi ma ñëwee taxaw di entraîné billaahi wallaahi réparé ngi ne dama bàyyi ma fen ñoo ànd. vidéo yi mi ngi sama téléphone. Mm. bi ma ñëwee woon ko samay combat. mu xool samay combat dafa ma entraîné loo xëy suba gi ne ma ñoom dañ ko wow. waaw nekkoon ne ko na zigzag ak man parce que Marley il est plus fort pour Sokh. ma ñàkk suma ndey téléphone baa ngi nii léegi léegi moom la vidéo yi. billaahi wallaahi wataalaahi ñu ne ma Marley il est plus fort pour Sokh. mais nañ zigzag man ak yow mais man que le meilleur gagne. yi moom wax waa ji moom wax loolu mu ne ma Sokh sama frère la yow sama frère nga mais que le meilleur gagne nga. waaw ñun ay ay ndaw dañuy liggéey moom champion la nee na yaayam champion la papaam champion la dama ko koy nangul comprendre nga parce que doomu ndaanaan ndaanaan lay doon mooy li ma ko wax rek nee naa ko man nangul naa ko ndaanaanam mais bu la 14 dina xam ne maa ko gën a nekk ndaanaan. ayca wooteel woo laa géej waay. wax point bu am solo. lu mu wax noonu ci Maroc. barki yonent bi laa la waatal man taalibe suñ Tuubaa laa du ma wax ci. ci du ma wax di tricher barki alxuraani karim ak yàlla bu ma ko daan bu loolu amee yàlla na ma daan coach bi bi ma dégganteeg moom coach bi coach boobu bi may entraîné boobu Marley xamul Maroc bi ma woowee barki alxuraani karim te billaahi wallaahi taalaahi woowu ma ko moom moo ma woo téléphone ne ma sa adversaire fii lay entraîné man maa koy entraîné barki yonanti yàlla Muhammad dama ni ko entraîné ko bu baax ndax mu am doole ndax maak moom dañoo war a bëri combat bu neex champion su ma ko waxul lii yàlla na ma marle daan gis nga xam nga lu gën a bon ci àdduna nga nekk ak sa moroomu jantal meen nga wax ko loo xam ni bu bis bi jàllee ngay jàkkaarloog moom mu lay xeeb kii am na loo xam ne bu ma ko waxee dama ci laa jaaree xepp ko ba faw kon ñaanuma yàlla wax ko lenn loo xam ne bu suñu làmb jeexee amitié bu ñu amoon maak moom day yàqu parce que dañuy daje maak moom am na suñu benn grand boo xam ne grand Pape Gueye borom étage ma jale maa koy béggee bu baax li tax combat bi deew ma këram parce que Marley la dëkkal day jàppale Marley di ma jàppale combat bi woowu ma ko téléphone dew ma këram te Marley xam na sama diggante moom man xam naa diggante ak Marley mais dafa am combat yoo xam ne dangay ngay mettre nit ki en l'aise parce que Marley moo ma gën a jege grand bi day nekk gàlleem subaa ngoon bu dëgg ba cëg su ma demee foofu grand bi da koy woo mu ñëw ñu toogandoo ensemble waxtaan kafre man gentleman la Marley gentleman la bi ñuy toog foofu man ak moom dañ doon waxtaan ci yeneen yu bokkul loolu kon làmb moo tëradi te ñu nekk nii métier millions yi ñuy fay bu ko jëlul keneen da koy jël kon dañ koy jël ñu bëree mu jeex kon amul lenn lu ñuy lu ma lu ma ko wax dama koo gëm. lu ma gëmul du ma ko wax. ayca bàyyi bàyyi ko mu woote bàyyi ko mu woote ndax mar la daan nar a tontu waaw ñu ngi sant ñëpp ñu ngi sant ñëpp di sant frère am bee réparé suma waay la comme ni maar la nekkee suma waay xëy na nag làmb moom moo ñu boole ñu war a bëre mais maa leen di bëggee bu baax di bëggee kenn si man di ko wax mention spéciale muy suma nijaay Jibi Joolaa man jooyuma suma papa jooyuma kenn xam nga lu tax suma nijaay ji bi joolaa may taxawu comme fi ma sam papa war a taxawoo sama mag Moustapha ñoo bokk benn deret moom itamit bokk na li tax tey jooyuma suma papa di ñaanal suma mafia bi yëpp di ñaanal Malick suma frère bi ma ñëwee ba léegi këram la ma lël lu mu mën ak lu mënul yëpp mu koy def ci man di ñaanal Moussa Ndiaye ay ñoom es ñoom si ñoom Demba Diaga maa leen di bëggee bu baax balaa may ñaanal kenn ku may may fukki dërëm damay ñaanal ñi nga xam ni man maa leen di teree nelaw muy moo talaa xam nga ay ñoom ñàngoor gi ñoom Père Thiam Thierno Boku jëf comprendre maa ngi nag woo Souleymane Ndiaye Souleymane Ndiaye maa ngi lay woo bu baax suma frère la moom nee na ma dina ma jëndal diis bolo gu billet moom nee na ma dina ma jëndal diis bolo gu billet kon maa ngi koy xaar di jaale nag suma benn kilifa di ko jaale waajuram bu génn àdduna muy Ablaye Diop Ablaye jóob Diop social suma kilifa la dafa may jàppale bu baax mu amee combat day génnee ay millions teg ko ci table kon maa ngi koy ñaanal juróom boobu noonu yàlla na saraxam yàgg ci loxoom suñu borom xaaree ko àjjana di woo suma papa Ablaye Timbo maa lay woo ci combat bu baax di woo Isaaxa Diop di woo ablaay Diop mu le maire ginnaaw di woo Jara Amadou Jara maa lay woo ci combat bi di woo suma xarit suma jigéen Rama Maké maa leen di wow ay ummi ñoom ñëpp dañuy sonn ci man Jazz Ice Pikine maa lay béggee bu baax frère Mortala ñu ngaaka maa ngi lay béggee bu baax di féliciter Boy Niang ci victoire bi mu jugee yàlla na la jik di ñaanal Eumeu suma frère di ñaanal Ama Baldé di encourager Balla ngay 2 ndax sampion la lu nekk def na ko ci làmb tey ndam bu nekk dugal na ko biir géejawaay daan na fi ñi fi nekkoon ñëpp kon tey bu ko Boy ñaa daanee logique làmb la parce que Boy Niang mooy xale ñu ngi koy encouragé di ko ñaanal bu baax di ñaanal waa Igri xam sa cosaan yëpp di ñaanal marle mi suñu borom defal ko tawféex wala 14 suñu borom may ma ndam ci kawam incha allah. waaw xanaa di santaat ñëpp rek di jaale Serigne Diouf sama benn grand boo xam ne dafa yàq sonn si man papaam dafa génn àdduna maa ngi ko koy jaale bu baax a baax a baax fay ja sama benn booy moom it papaam dafa génn àdduna maa ko koy jaale bu baax di gërëm grand grand pape Gueye maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax waa di woo Elimane bu gone tey mu ñëw jàpp si combat bu baax di gërëm Tafa yaa duwaañe Tafa yaa duwaañe maa koy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm Ousseynou baax international Ousseynou Ba international maa ngi koy gërëm borom Olympiakos maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm Mansour Lo gërëm Mansour Lo bu baax di gërëm Mbaye Lo xam nga di gërëm Baye As duwaañe di gërëm Laxaat moom it borom gone tey nga xam ne mi ngi ba Qatar jour la maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm Lamine Naar Lamine Naar suma fils mi ngi Italie Milan maa koy gërëm bu baax a baax a baax a baax Lamine Naar ak Alou Lamine Naar ak Alou maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax Lamine Naar ak Alou parce que dañoo yëkkati lu bare bare bare bare def ko si man ñaar ñoo ñoo ma doon sotti gàllaaj Lamine Naar ak Alou ñoo ma doon sotti gàllaaj yàlla dogal ñoom ñaar ñu ànd nekk Italie nekk ay seex comprendre nga kon ñooñu maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm liiru jaan suñu grand monument géejowaay gis nañ ko fan yi xam nga xolam neexul mais làmb noonu la Balla Gaye def na lu ne si làmb xam nga di woo moo njaay doomu nday liiru jaan pour mu ñëw jàpp si combat bu baax moo njaay directeur comprendre nga di ñaanal suma adversaire jàmm parce que lu dul jàmm jàmm ko gën yéenewuma lu bon man yéenewuma ko lu bon ñun ñaar jàmm rek lañ war a séex war ñoo séex leneen lu dul jàmm di gërëm sponsor bi di gërëm KP bu baax xam nga wan x beeg ak gars sponsor yi fi nekk yëpp waaw di gërëm promoteur bi bu baax di ko gërëm bu baax di gërëm Abdou Lahad Ndiaye ak mbëri fi nekk yëpp aja joxante leen loxo